salaamaaleykum internet Feeling Dakar TV dalee nag jàmm ci xibaar yi gën a fës ci mbis bi ñu dinañ ko dooree nag ak ndaje bi nga xam ne Pape Diouf ak Wally Seck daje nañ ko Ndeye Gueye ñàkk teew gi mu ñàkk teew ci soirée Pape Diouf ya coowal Abdoulaye Diop Khass ak soxna soosu di aadama Arlette coow lu jëm ci centre de redressement yu sëriñ Modou Kara yile dinañ ko jeexalee nag ak accident yi ñu nemmeeku ni ki démb Pape Diouf Wally Seck démb gis nañ leen foofee ca ñu daal di amal ab ndaje wane fa seen mbégte wan seeni fans ñoom amuñu benn problème. Ndeye Gueye ñàkk teew gi mu ñàkk teew ba ñu ko laajee foofee ca DTV nag moom mu ngi xamle ni amul benn problème ak Pape wante moom wàll tippoo bu ñu gisee nii demul lu bari ci soirée Pape Diouf ya du leen dul ñàkk jot ak da doon jël kepp moo tax mu fa doon xaar. ñi am problème nag du ñenn ñu dul Abdoulaye job Khass ak soxna si ñu dippee Adama Arlette nag yóbbu na ci kanamu yoon Abdoulaye Diop Khass ngir affaire njub njàcc mu ko yóbboo ci kanamu yoon commissariat bu yëmbal saisir na dossier bi ba yebal takk der yi ngir ñu aar soxna sooso di Adama ba pare gunge ko ca kër Abdoulaye Diop Khass ngir mu jël fa ay bagage am coow lu jëm ci centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi am na lu bees Baba Diawo om d'affaires bi doomam bi di Pepe Diawo moo ci taq ripp ba ñu sukkandikoo nag ci yéenekaay bii di Les Échos mu ngi ñuy xamle ni Pepe Diawo moom yoon da koo teg loxo doon amal ak moom laaj ak tontu ndaxte dañu ko taqal si mbirum metital bi nga xamante ne amoon na ca këram yooyee nekkoon ca wakaam ba ñu ko laajee nag moom nee na yoonam nekkul ci mbir mi yégul sax la fa daan am wante yoon gëmu ko benn yoon ba tax teg na ko loxo moom ak ay ñoñam keneen ku nekk ci loxo yoon Assane Diouf feebar dal ko fa bu su muy tëndikuwul dinañ dagg benn tànkam. loolee nag tax na niki démb ci assemblée nationale député yu bëri wax nañ ci mbir mi ku ci mel ni Toussaint Manga ak Mame Diarra Fam àddu nañ jëm ci lu ni mel Toussaint Manga nag mu ngi xamal ki nga xam ne mooy ministre de la justice maitre Malick Sall ni ko nañu ko àtte wala ñu bàyyi ko mu dem ci ay mbokkam. leneen lu doy waar accident yu métti ñu nemmeeku niki démb. boori Linguère mattam juróomi doomi aadama ñàkk seen bakkan ci ab accident bu metti ba ñaari soxna yoo xamante ne ay jàngalekat lañu woon kenn ki tudd Ngoone géey keneen ki tudd Aysatu Njaay mel ni loolu rekk doyul fii ci Ndakaaru ba tey ni ci démb beneen accident amaat benn ñàkk ci bakkanam ñaar am si ay gaañu gaañu jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi lii lañ leen indiloon ci xibaaru bés bi ba ëllëg incha allah